ñoo ngi seede na amul kenn ki ñu war a jaamu ci dëgg pour lu yàlla di seede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yàlla yónni ñëpp. ginnaaw loolu suñu dars bi ñuy amal ak Saïd li weer wu nekk incha allah moom moo war a mu la ñu defaatee incha allah xam ngeen ni semaine bi passé ñu ko doon xaar yàlla dogaloon mu amoon ngant amoon dëj yàlla yàlla xare. mbokk bi nga xamante ni moom moo wàññeeku ci mbokk mi yal na ko yàlla xare aljanna ñaaw loolu xam ngeen ni fi muy jógee sori na day tafsir ba noppi dina diggante ci misa géele doog a jógewaat foofu mu ñëw parce que bu mu agsee léegi aussi ñu mooy ku mu dal lu tuuti parce que incha allah duñ def lenn lu dul ñëpp ñu ànd teewlu dars bi nga xamante ni incha allah moom la ñuy joxe incha allah ñaan yàlla mu doon njëriñ ci ñun ak ci moom ak boolem bi ñu incha allah. kon tafaddal maskuur.
alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. ixwatal iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy tomb fukkeel ak ñett ci njàngat téere boobu di maza yaani intimaa'i lil islaam ci docteur Fatiha Kan bind ko tey sunu dars mooy an axshaahu wala axsha gayru ndeke dafa bokk ci sama pas-pas bokk gi may bokk ci lislaam ma ragal yàlla du ma ragal kenn kudul moom an axshaahu mu nekk tomb boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a càmbar sunu bopp est-ce que yàlla rek lan ragal est-ce que ragaluñu keneen ku dul moom est-ce que ragal yàlla googu ñu ragal yàlla dan ko ragal pour jege ko wala dan ko ragal pour sori ko gaynde soo ko ragalee nooy def danga koy jege wala danga koy sori lu dul yàlla lu ne soo ko ragalee danga koy sori yàlla rek ngay ragal jege ko amma lu dul yàlla boo ko ragalee da nga koy sori parce que boo ko jagalee mu alag la sunu boroom nag jalla jalaaluhu moom boo ko ragalee da nga koy jege ba pare mu nekk sawaay nga xaritoog moom yàlla moo tax mu ne pour nga bokk ci lislaam fokk nga ragal yàlla an axshaahu wala axsha gayru duma ragal kenn ku dul yàlla loolu dafa bokk ci pas-pasab jullit yàlla kese kese kese moom ngay ragal ak lu mu mën a mel ak lu mu mën a nekk yàlla rek sooy wax yàlla rek ngay ci xool doo ci xool nit kontaan na wala mer na yàlla ngay ragal sa wax say jëf yàlla nga ciy ragal doo xool diw doo xool ma sàmba doo xool ma demba waaw sa jaamu yàlla yi yàlla nga ko mooy tax nga koy def doo xool keneen dafa am benn buur ci Égypte dafa am benn place bu ñu daan jaay sàngara yàlla def buur bi di ñëw ci benn jàkka bu ñu doon ubbi ñépp ñëw toog buur bi di dox di ñëw di ubbi si jàkka ji bi mu ñëwee ba war a romb imam bi rek boroom xam-xam bi Cheikh Izzuddin mu daal di yuuxu daal di jaar ci turu buur bi ne ko déw mu ne ñëpp taxaw mu ne ko ragalal yàlla buur bi ne lan laa def mu ne ko place sàngam dañ fay jaay sàngara kooku ne ko man fii laa ko fekk inna wajadna abaana ala umma samay samay maam ñoo fi nekkoon nekk buur ñu fay jaay sàngara ba sama papa ñëw faatu man ma ñëw lan laa ci mën mu ne ko da ngaa bëgg a bokk ci ñooñu di wax inna wajadna abaana ala umma fekk naa sama ndey ak sama baay lii la ñuy def rek moom laay def ci ñooñu nga bëgg a bokk yow foofu nga bëgg a bokk buur bi daal di joxe ndigal ne nañ tëj baar boobu ñu daal di ubbi jàkka ji ñëpp ñibbi ci suba si ñu am dars taalibe yi toog wër sëriñ bi benn taalibe ne ko sëriñ def nga démb benn danger boo xam ne loolu bul ko defati ne lan laa def mu ne yow démb buur bi ñëw di ubbi jàkk ji ci digg mbooloo mi ci biir jàkk ji nga yuuxu ko ne ko ragalal yàlla yow noonu la ko mu ne mu ne ko wallahi doom bi buur bi ñëw ma xool ak garde corps yeeg niñ ko daree ak màggaayam ma natt màggaayam ak màggaayu yàlla mu ne dafa mel ni muus laa gis moo tax bi ma koy wax ragalal yàlla teyuma ko moo tax gis nga ku ragal yàlla lu mu mën a doon dootul rëy sa kanam parce que ndax am na ku gën a rëy yàlla ndax am na ku ko gën a màgg ndax am na ku ko gën a rëy ku ko gën a foor amul kon pour nga bokk ci l'islam foog nga ragal yàlla mu ne da ngay jàng alxuraan mu ne fala taxshawhum waxshawni bu leen leen ragal ragal leen ma moo tax saaba yi keroog bañ leen ne tey ngeen dee gaa yi dajaloo nañ lan lañ wax fa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakil julit waru ragal xatta bu dee dee dañu wax Umarul Muxtaar xam ngeen Umarul Muxtaar yi ngeen seetaan benn film bu ñu tuddee le lion du désert ah ngeen koy seetaan mooy histoire libyen boobu te ñuy wax mooy maamu Xadafi bi muy xeex ak colonialiste yi Italie gars yi dañ ko ne Omar Sidi Omar lañ ko doon wax Sidi Omar mu ne labbayk ñu ne ko italiens yi dañoo am ay avion te yow yoroo lu dul ay fas munoo xeex ak ñoom te ngaa toog mu ne ndax avion yi bu ñu naawee dañuy dem arche dañuy romb arche ñu ne ko déedéet mu ne maa daamas borom arche mu ngi ànd ak man du ma ragal avion yi ndax avion yi bu ñu naawee dañuy naaw ba tiim arche yàlla gars yi ne déedéet mu ne maa daama borom arche man la àndal kon du ma ragal avion yi waaw gis nga ko ànd ak yàlla kon waroo ragal kenn yàlla rek ngay ragal waroo ragal xiif waroo ragal mar waroo ragal ñàkk waroo ragal leen léeg-léeg xale yaa ngi ni ma laaj leen ma ne dañuy tafsir quran ñu egg ci aaya inna allah ala kulli shay'in qadir ñun ñëpp aaya yooyu noonu lañ koy jàngate suñ la ko waxee da nga naan yàllaa mën lépp rek pare ci ah mais ban kóolute nga am ci inna allah ala kulli shay'in qadir est-ce que am nga ci confiance yenn saa yi ma joxe misaal ma ne su la Macky Sall recevoir oon mu ne la yow sama xarit nga te xam nga ne yow loo bëgg dinaa ko def soo bëggee dara rek wax ma da ngay am confiance wala doo am confiance damay laajte da ngay am confiance am mu ne la loo bëgg wax ma yow xam nga sama xarit nga est-ce que di nga bëggati dara fii ci réew mi nga nga nga ciy yox yox yi da ngay am kóolute wala doo am kóolute la moo tax yàlla ne la inna allah ala kulli shay'in qadir amoo kóolute yàlla ak Macky Sall kopp doole dama leen laaj du ngeen tontu wala Macky Sall moo kopp doole ah kon lu leen tere tontu yàlla ak moom kopp doole wala da ngeen ragal dem dig mbokk yi an axshaahu wala axsha gayru ragal yàlla doo ragal keneen ku ku dul moom wa an takuna xasiyati lahu daafia lil bu'di an masaxitihi wa maxaarimihi ragal yàlla googu may ragal yàlla lan lay def ci man mooy mu waajal ma ma pare sori lépp loo xam ne day tax yàlla mere ma day tax dafa araam soo ragalee yàlla lool la ragal yàlla xam nga lu mu lay jural day tax nga wattandiku barab yi nga xam ne boo fa taxawee yàlla mere la wala barab yi nga xam ne boo fa duggee dugg ci lu araam loolu la loolu la ragal yàlla di jur waaw ku ragal yàlla doo ko fekk ci lu araam bala da ngay dégg gars yi chaque jour ñu naan lan inni axaafullah man damaa ragal yàlla waa ji tëgg na tëdd na guddi jigéen tëdd ba deux heures du matin fëgg ko tey ci Grand Yoff su xale bu góor bu jantal toll ci digg ndëndëm mel nu mu war a mel xale bu jigéen bu ko ne danduma gën koo naaw ñëw bàyyi ba minuit ne ko këng këng ko kan la mu ne ko man la diw loo soxla mu ne ko yow laa seet si est-ce que jàpp ngeen ne fii tey fanaan na fi ko ku naan ko inni axaafullah mu ne ko inni axaafullah man damaa ragal yàlla ndeysaan soo ragalee yàlla ragal yàlla lu mu lay jural mooy da ngay wattu place yi nga xam ne soo ci duggee yàlla mere la jëf yi nga xam ne yàlla da kaa tere c'est parce que dangaa ragal yàlla xoolal ñun fii rek yenn saa yi nga xaritoog nit wala nga bëgg nit wala wala wala ndeysaan sama benn goro xaj rek la bañ neen dafa jékki-jékki rek benn xaj dugg seen kër mu dégg papaam naan jox leen xaj bi mu lekk te papaam xaj rek la bañoon ñu ne ko waaw yow papa yow yaa ne woon bëggoo xaj ci kër gi mu ne parce que xaju diw la te diw sama xarit la bëgguma may dàq xajam xoola kóllëre yooyu xoola fonk nit boobu fonk bi nga fonk sa xarit ba mu am xaj te yow bëggoo xaj xaj bi dugg sa kër nga bañ a def xaj bi lu ko metti ndax sa xarit bi ah kon mbokk yi nañu yëg ne bokk ci lislaam du nii rek dafa am ay mbir yum lay jural su fekkee ne mbir mi da nga cee bokk boo bokkee ci famille bi boo bokkee ci parti bi boo bokkee ci kër gi boo bokkee ci école bi boo bokkee boo bokkee ci liggéeykaay bi dafa am ay charte ngay teel a xëy heure sàngam nangam ngay liggéey imaginer ñun ñu bokk ci l'islam te l'islam boobu ñu bokk li l'islam bi di wax dara lañ ci du def kon lan mooy wane ne ñun bokk nañ ci islam bi ah loolu lan la lay jural mooy ragal yàlla lay def ci yow ragal yàlla goo xam ne daf lay soriloo meru yàlla ndeysaan bu doo bëgg yàlla mere la da dangay am soxna rek doo bëgg soxna si mer doo bëgg mu mer benn yoon nga bëgg yàlla mere la mu ne sunu borom ne wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun suratu nur aya 52 sunu borom nee na képp ku topp yàlla wa man yuti illah wa rasulahu ak yonentam gis nga moo tax topp bu ngeen jàng ci alxuraan rek yàlla yonentam la ciy teg li doy waar nag mooy tey dañuy topp ñeneen ñu dul yàlla ak yonent te yàlla moom boppam la wax ak yonent wa man yuti illaha wa rasulahu ku topp yàlla ak yonent ñoom ñaar la ñuy toppale atiu llaha wa atiu rasul topp leen yàlla ak yonentam même ba ñuy moy dañ ñu tere wa man yaasi llaha wa rasulahu ku moy yàlla ak yonent gis nga sunu borom ne wa yaxsha llaha mu ragal yàlla wa yattaqihi mu moytu ko ñaari bokk de wa yaxsha allah mu ragal yàlla wa yattaqihi mu moytu nga moytu yàlla yàlla dañ koy moytu wala ab ponkal rek moo xam ne leer na la mën na la dank su la xoolee na la booy moytu ma da ngay moytu de da ngay moytu xoola buur bu tol na yàlla mu ne moytu ma moytu leen ma wallahi jar naa moytu waaye yemul ci loolu mu ne fa ulaika humul faizuna ñooy ñooy ñi texe kon lan mooy màndarga texe texe mooy lan mooy yàlla rëccal la ci safara nga dugg aljana loolu mooy texe texe du leneen leen saa nga dégg ku ne man bu ma dundee ba sama kër gi tabax bi yegg ma texe leen saa nga dégg xale bu góor bu ne bu ma dundee ba takk ndey texe yenn saa yi ndey nga dégg mu ne bu ma dundee ba Moodu takk ma ma texe yenn saa yi Ibra ne bu ma dundee ba naaw dem yuus ba tekki texe du ngeen koy dégg yenn saa nga dégg maire yi eh waaye man sama doom yi bu ñu leen takkee ma texe ñoom loolu mooy seen problème ah ndeke loolu yëpp du texe lan mooy texe yàlla ne wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ndeke texe dafa am ay charte bu njëkk bi lan la topp yàlla ñaareel bi lan la topp yonent ñetteel bi lan la ragal yàlla moytu ko ñeenteel ñeenti melokaan yi yàlla nee na ku ko def rek daal di texe fa ulaika humul faizun texe mooy fa man zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaza képp ku yàlla soril safara ëllëg yowm al qiyama ñu indil la aljanna dugal la borom bi nee na yow texe nga loolu la yàlla wax moom mooy texe mu ne sunu borom waxaat inna alladina yaxshawna rabbahum bil xaybi lahum magfira wa ajrun kabir suratu mulk ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom yaxshawna rabbahum da ngay jàng alquran ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ragaloon yàlla ragal yàlla ba buy julli su taxawee kabbar dañuy dégg dënn bi di bax mel ni cin buy bax azizun ka azizul mirjal minal buka dañuy dégg dënn bi di bax ndax ragal yàlla ah ndeke ñi ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala inna alladina yaxshawna rabbahum ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lan bil xaybi ci kumpa gisuñu ko waaye ragal nañ ko nekku fi waaye ragal nañ ko nekku fi lan moo waral caméra surveillance yi tey ñàkk ragal yàlla caméra surveillance yu jullit mooy ragal mooy yàlla ayna allah abdullah ibn umar dafa génn ci àll bi ànd ak ay sahaaba ñu gis benn sàmmkat biñ gisee sàmmkat bi abdullah ibn umar di seetlu sàmm bi mu ne ko ñun de dañoo génnoon dañoo xiif doo ñu jaay ci sa xar yi ngay sàmm benn mu ne moom ma ko mu ne ko boo demee nga ni borom till yi ñoo ko fàdd soo demee nga ni borom su la borom ne ana sama xar nga ni ko till yi lekk nañ ko wala bukki yi sàmmkat bi ne Abdullahi ibn Umar ayna allah ana yàlla Abdullahi ibn Umar téye sikkimam bi di yuuxu ci àll bi naan qaala raa'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla kon ndeke da ngay ragal yàlla ci kumpa nekku fi waaye da nga koy ragal nekku fi gisu la wala mi ngi lay gis yàlla mi ngi lay gis wala gisu la mi lay gis ittaqillah haysuma kunt ragal yàlla foo mën a nekk ah an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak yàlla ngi lay gis jàngeen alquran yàlla mu ne alam yaalam bi anna allaha yara benn waaye neen dama nekk ci marché ma ni tëll rek siggi rek yem ci benn xale bu jigéen mu mel ne urul ay ni mu ne ma bëgg xool rek aaya alxuraan bi daal di ñëw ci sama xel alam yaalam bi anna allaha yara mu ne ma sëgg di jooy ba sama biir kër lu tax alam yaalam bi anna allaha yara xanaa xamoon ne yàlla mi ngi lay gis xanaa xamoon ne yàllaa ngi gis moo tax dëgg-dëgg alxuraan moo ñëw pour defar nu mais du ay garde corps du ay gendarme du ay douanier du ay policier du ay militaire alquran moo ñëw pour defal jullit yi jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon ay policier amul woon ay kaso lu tax parce que nit ñi dañ leen yaroon ci ragal yàlla dëkk bi bu ñu ragalee yàlla dëkk bi yëpp jag fàttaliku ngeen ndaw sa doon jaay soow di ko njar yaa ngeen xissa bi Umar ibnul Xattaab da daan contrôler dëkk bi guddi mu dégg ndaw si naan doom ji njaral soow mi ndax mu jar na ko ah yaay loolu amirul muminin daf koy tere loolu triche la tudd te yonent bi nee na man xashana fa laysa minna ku ñuy wuruj di ñu triche bokkoo ci ñun ndaw si bëril coow ci doom ji trop da ngaa dëgër bopp defal li ma la wax Omar di dégg doom ji naan ko yaay loolu amirul muminin Omar daf koy tere mu ne ko Omar nekku fii mu ne ko yaay in kaana Omar laa taraana fa rabbu Omar yaraana ay doom xanaa xamoo bu fi Omar nekkul gisu nit borom Omar ak nuy gis alam yaalam bi anna allaha yara ab julit dafay ragal yàlla ci kumpa yàlla nee na ñi ma ragal ci kumpa lahum magfira ñoo jéggal naa leen jéggal naa leen lahum magfira yemu ci waaye mu ne wa ajurun kabir dinaa leen fay fay bu rëy xoolal li nekk ci ngëneelu ragal yàlla mooy yàlla jéggal na la waaye beneen bi gën a rëy mooy yàlla dana la fay ëllëg yowmal qiyaam fay bu rëy rëy rëy rëy rëy kon ba mooy fukkeelu tomb ak ñett fukkeelu tomb ak ñeent mu ne wa an azkorahu ma koy tudd moom yàlla wallaay ku bëgg dara bëri loo ko tudd fi am nay célibataire am bari na am ngeen ñu ngeen bëgg ah chaque jour seeni làmmiñ mu ngi répété ndey ndey ndey ndey ndey ñëpp xam nañ ko siiw na ñëpp xam nañ ne moom nga bëgg soo bëggee dara da ngay répété tur bi trop waa ki bëgg yàlla nag lu tax doo wax yàlla lu bari lu tax doo ko tudd lu bari ah ku bëgg dara mu sax ci sa làmmiñ kon yow bokk gi nga war a bokk ci islaam daf la war a wan ne da ngaa war a tudd yàlla lu bari waaye da nga koy saxal wa adimu zikruhu nga saxal ko gis nga ci sa làmmiñ ñaata aaya ñoo ñëw naan ñu tudd leen yàlla ah ñaata ñaata aaya moo ñëw naan ñu tudd leen yàlla wa sabbihuuhu bukratan wa asila dee leen ko sabbal guddi ak bëccëg suba ngoon bukratan wa asila su guddee wa min al leyli fasjud lahu su guddee ngeen koy sujootal ñaata ñaata téere lañ ñu jàngal askaaru sabah wal masa nee nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi ñooy nettali kunna nauddu danañ konteel yonent bi ci benn majlis fu mu toog ah fu yonent bi toog daanañ ko konteel muy wax subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wala mu ne rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka anta tawwabul ghafur ci benn majlis sahaaba yi ne danañ konte ba sonn mooy kafaaratul majlis beneen bi mooy ñu bëri suñuy wax ci baatu zikr tudd yàlla ñu bëree bëri dañuy yaakaar ne mooy nga toog rek yor kurus naan saafurulaay saafurulaay sa alhamdulilah la lan mooy tudd yàlla waxuma sax ñu wax astaghfirullah mais saafurulaay saafurulaay mooy lan astaghfirullah xam nga lu tax sunu sunu jaamu yàlla yi du am cafka sunu jaamu yàlla yi du neex xam nga lu tax ceeb boo ko toggee amul xorom nu muy def du neex ah pourtant xoolal élément bu ndaw la moo fi gën a tuuti moom moo gën a tuuti sax boo moytul ci li ñuy jënd ndugg benn xale bu jigéen bu dëgër fit daf may nettali benn histoire lu tax sëyam tas nee na benn waaye ko takk waa ji bu xëyee suba day indi big indi feuille ne ko tey maafe laa bëgg maafe lan moo ko war a dugg ndaw si ne ko maafe ah il faut ñu am nanga mu ne loolu lu muy jaar ndaw si ne cent franc mu bind ndaw si ne la affaire bi soof na benn bis mu xëy rek ne ma tey suppu kànja la ñuy togg ma ne ko d'accord mu ne indi feuille bi mu ne ma indi feuille bi mu ne kànja ñaata la ndaw si wax mu bind jën ñaata la ndaw si wax mu bind tiir ñaata la ndaw si wax mu bind lu ndaw si wax mu bind ndaw si nee na ma koy wax muy bind ma koy wax muy bind ma koy wax muy bind ba mu pare mu ne ok mu ne loolu yëpp ñaata la calculer tër tër tër tër machine am 3000 am ndaw si nee na ma ñëw togg lépp teg yekk mu ñëw ne am amul xorom ndaw si ne ko bindoo ko ndaw si nee na maa gis xorom bi ci waañ bi jël ko tëmbal ko ci duus bi comme bind ko mu mu indi fooy bi xool mu ne ah wax nga dëgg de ndaw si ne ko jeex na li nga li nga ma jox loolu laal toggal xoolal góor gu mel noonu vraiment ndekk ñu mel noonu am nañ ci àdduna laa ilaha illa allah wallahi alazima li may wax ni ndaw si mu may dégg ndaw si nee na suppu kànja moo tax sëy bi bu amul xorom te maa ko tey ndax dama sonn non c'est catastrophe ñu bëri dañu yaakaar ne buñ nee zikr tudd yàlla rek mooy nga toog naan astaxfir déedéet zikr mooy sa quatre vingt quatre heures bi sooy sol mbubb am na ñaan boo war a wax boo koy simmi am na ñaan boo war a wax booy sol dàll am na ñaan boo war a wax booy simmi sooy dugg ci toilette bi booy génn booy jàpp boo jàppee ba pare sooy julli boo jullee ba pare booy lekk boo lekkee ba pare booy génn sa kër booy duggaat booy yéeg ci oto booy wàcc booy tëdd booy sëyeeg sa soxna booy yeewoo maa lu nekk ay askar ngay def soo tàmmee loolu sa làmmiñ day tudd day tàmm tudd yàlla soo tàmmee lépp looy def am nga loo ciy wax da ngay nekk tuddkatu yàlla nekkul tudd yàlla rek nga ut benn waxtu dugg ci sa ruq benn néeg suñ laa nga ne tey def naa sans astaghfirullah def naa sans subhanallah sans alhamdulillah déedéet mooy da ngay tàmm azkar yi nga xam ne même jàng alquran sax ci zikr bi la to la bokk da nga am wirdul yow mii léegi-léegi maa ngi koy wax xale yi jàkk ja tey ci ñun ñu toog fii ñan ñoo ci dugg facebook nañ yëkkati seen loxo ku dem facebook tey yëkkati sa loxo jigéen ak góor ku dugg facebook yëkkati sa loxo bu leen ragal bu leen ragal yëkkati leen ok voilà da ngay gis nit ñi di dem facebook te duñ jàng alxuraan nga gis koo xam ne dem na facebook def fa deux heures de temps waa ji da doon def benn gam-gam dafa wane facebook bi wane kaamil alxuraan bi mu gis nit ñi raam facebook kenn raawul ci alxuraan bi mu wane jàkk bi wane wane buntu banque bi mu gis nit ñi raa ci buntu banque bi kenn raawul buntu jàkk kenn ki sax moom lan la def dafa ñëw fekk dafa bëgg taxi mu ñëw fekk borom taxi bi amul client mu ngi wéeru ci fauteuil bi tegale ñaar tànk yor kaamil alxuraan di liir moom mi bëgg oto de mu ñëw ba ci borom taxi bi mu ne ko amaata ahad ndax dafa am ku dee chauffeur taxi bi xool ko ne ko naam mu ne ko man mu ne ko xulubu naa dafa am ku dee mu ne waaw ku dee mu ne sunu xol jullit yi dem ba toll ci ne bala ñuy jàng alxuraan am ku dee jullit yi foofu lañ toll tey fu nekk nii bu laajte soo romboon léegi benn baas ñu teg saisi paa yi nekk ci digg bi yor ay kaamil looy wax daa am ku dee tout court dañuy wàcce kaamil daa am ku dee jeex na kañ la ñuy jàng kaamil alxuraan Sénégal ci yenn jàkk yi vendredi ba vendredi kañ la ñuy tafsir korité ba korité wala jeex na fan la ñuy fan la ñu alxuraan di jëriñee alxuraan di ko jàng suba bu nekk sax ci askar la bokk boole koog askar yi ñu la wax boole koog sa askarul yow mi was sabaax wa masa yi ngay def sa quotidiennement lu nekk da nga war a def tey jii yaa ngi nii di ñibbi soo demee nga defoon da nga war a ñëw rek simi sa tubéy sànni simi bu mi sànni simi dàll yi rek plongé dafa def ay askar yooyu rek balaa ngay tëdd wala yéen bi jàngale ko wala ñu bëri ci ñun dañuy ñëw rek feew yenn saa yi sax dañ leen di simil seen dàll yi boo xam ne tey damaa dee ah ah ana sa askar yi nga war a def te dañ ne yooyu da nga ciy sax askar yi da nga ciy sax wala yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah fexe leen seen làmmiñ yi muy tooy ci tudd yàlla benn waaye dañ may wax ne ci xalifa diine ji la dañ may wax ne dafa tàmmoon tudd yàlla ba gémmiñ gi déformé wu gémmiñ gi déformé wu ndax tàmm tudd yàlla allahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la benn benn cheikh bu tudd seen xiit yi mi ngi nettali ci youtube nee na dafa seeti woon cheikh bun abdul aziz bun baaz nee na ñuy añ ñuy lekk dañ doon lekk ban plat ci plat yi muy ñuy lekk nee na cheikh bi baati yàlla yi mu tibb yi mu tudd moo ëpp kudd yi mu tibb dank bu nekk daanaka dina ànd ak centaine de askar mu doog su koy tibb su koy lekk bu koy wann nee na ba bool bi maam dafa tiit te nee na bis boobu la ko bis boobu rek la ko mosoon de sabar ndekki noonu lay dundee kon ab jullit dafa war a tàmm tudd yàlla mu ne sumti fikran na nga fexe soo noppee nga xalaatal diine waaye noppi boo xam da ngaa noppi looy xalaat sama booy bi xaw ma fan laay dajal moom ba ñu reer quoi booy looy xalaat ndey laay xalaat quoi wala ayda laay xalaat wala móodu laay xalaat wala ibra loolu la wax an yakuna sumti fikran ah wa nutqi zikran su ma noppee ay xalaat la pour diine naka laay def ba rëcc naka laay def ba dugg aljanna loolu laay xalaat nan laay xalaat naka laay def ba dugg aljanna ndeysaan daawud yonent yàlla daawud dane yàlla ay yàlla yàlla man maam ndax ñeme naa la yow yàlla mënumaa muñ tàngooru jant bi nga bëgg maa dugal jahannama daawud yow yàlla mënumaa muñ sa kàddu yërmande nga bëgg maa dégg sa kàddu mbugal yonent yàlla daawud xam ngeen daawud alayhi salaam moo doon wax yàlla ah ah yow sama borom ahin ahin ya rabbi yow yàlla mënumaa muñ sa tàngaayu jant bi mënuma koo muñ yow yàlla nga bëgg maa dugal jahannama mbokk yi kon ndeke mbir yi du ay waxi kese an yakuna sumti fikran na nga fexe say noppi nekk xalaat waaye wa nutqi zikran sooy wax na nekk tudd yàlla waaw zikr ñaata aaya lañ ñu orienté loolu fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu dee leen sàbbaal seen tur boroom di ko jéglu wazkurullaha zikran kasira ah tudd leen yàlla tudd yu baree baree bari ab julit làmmiñam dafa war a tudd yàlla gis nga nit ñi seen làmmiñ yi dafa tàmm bokkaale ba tey boo duggoon oto oto bi ne rën ci doo daan looy dégg ak néew nga dégg subhanallah sama benn soxna day tukki dem ba benn dëkk ci àll bi ñu wàcc oto bi dugg saret saret bi noonu muy dawee comme tàmm ko saret bi yegg si ci ak ñi mu àndaloon ci benn kàmb ne gërëm mu ne subhanallah am ku ko ne doo wax diw mu ne ko waxuma kooku ndax kii laa xam mënumaa wax kooku ndax xawma kooku kii laa xam xoolal subhanallah ndax am na ku gën a rëy yàlla loolu la yàlla di wax ci alquran nit ñi seen bokkaale gi ñu nekkee wa ida rakibu fil fulka suñ duggee gaal wala ñu dugg bato ñu dem ba digg géej bato bi tremble nit ñi yaakaar ne dañuy dee ñu woo yàlla ay sunu borom ay sunu borom bu affaire bi ne teg bu ñu wàccee nga dégg ñu ne capitaine bi du nit le chauffeur bi du nit non waa ji moo mën dawal fekk bi ñu jàqee ku ñu woowoon allahu akbar yàlla ne fa lamma najjaahum ilal barri ba ma leen musalee ba ñu ñëw ci suuf nag ba seen tànk yi laal suuf ñu gestu ñoom ñëpp ñu jàkkaarloog seen kër fa isaahum yushrikuun ñu may bokkaale yàlla mën a muñ allahu akbar te xoola mu ne loon leen xaar deuxième fois ba ñu dellu de sama benn dëkkandoo dafa tukki oto bi accidenté mu rëcc mu ñëw sunu kër yi nii la kër sëriñ bi moo nekk côté bële mu ñëw trois jours sëñ bi danaan génn lal basangam ci buntu kër gi ñëpp ñëw toog mu ñëw fekk mbooloo maa ngi toog sëñ baa ngi toog mu ne ko yaa ma musal keroog ba oto bi di accidenté dama laa woogatee oto bi gis nga lu mu ko wax wala mu weddi ko mu ne ko yàlla moo la musal mu noppi kooku mu doon wax ne yow yaa téye oto bi kooku dem tukki di ñëwaat accidenté tànk bi dagg ba fii may wax ak yéen benn tànk la kon ana dëgg gi dëgg gi mooy yàlla yàlla faalun lima yurid laa yusal amma yafal wa hum yusaluun jullit bu gëm yàlla làmmiñam dafa war a tudd yàlla guddi ak bëccëg fa zikrullahu taala huwa al ilaaj an nafsi gis nga tey am na ñu bëri ci ñun ñu am problème mun doon tudd yàlla léegi muy dem billahi wallahi taala nañ tàmmal yàlla sunu làmmiñ yi ñu essayé tey mooy dars fii kañ la ñuy amaat dars un mois ñun ñëpp nañ ko essayé ba un mois yi di ñëwaat ñu xool fa zikrullah ilaaju nafs tudd yàlla mooy faj feebar yi feebar yi nag bu leen yaakaar ne feebar yi yaram yi lépp a ngi ci mooy dindi njàqare yi mooy dindi nattu yi mooy dindi tiis yi mooy dindi xat-xat yi mooy dindi problème yi nan taa mu tudd yàlla ñu xool benn waaye daf may wax ne saa yu ma ñàkkee dépasse rek damaa gëjoo wax la hawla wala quwwata illa billah saa yu ma ñàkkee dépasse dama ko gëj a wax waaye su ma koy wax affaire yi day tuuru rek voilà kon moom mooy ilaaju nafsi al aqwa wa huwa silah al amadi mooy njumtukaay bi tudd yàlla mooy buntu bi xamal yàlla bi mu yombee boo amee problème yàlla xam na ku dul tudd yàlla ku xamul yàlla koo xam ne làmmiñam bi bokkaale yaa cheikh yaa sàmba yaa diw ah koo xam ne xamul yàlla man la la yàlla di régler problème am kon tudd yàlla mbokk yi mooy garab mooy ngànnaay gi gën a rëy amaamal aadiyaat gis nga aada yi ñu nekkee yu kenn xamul xoolal xoolal waa ji nga xam ne sawaay timis dafa jot mu takk ay rajoom nekk ci mbedd mi yor sabar nee na day tudd yàlla laa ilaa ila la di tëgg ba fajar jot est-ce que noonu la ñuy tuddee yàlla di fecc ba fajar jot ah kon nañu tàmmal suñu bopp jéem a yar suñu bakkan ci tudd borom bi tabaraka wa taala loolu mooy defar aada yi nga xam ne moom la ñuy nekkal ci jamono bi azzaman yi wa kurubul xayaat problème mu dund gi wa naibaatiha ak ay jafe-jafeem yii di dem yii di ñëw yi koy régler mooy tudd yàlla ñun ñëpp bu ñu xamoon yàlla wala yàlla lu mu wax wa iza saalaka ibadi anni ndeysaan benn xale bu jigéen sànq maa ngi koy wax ñii dafa ne ma ñaari aaya ñoo ma jooyloo ci alquran xale bu jigéen de xam ngeen fan la nekk riche Union soviétique xale bu jigéen cundum nee na ma fa ma nekk man kenn maa fa ñuul man kenn maa fay muuru kenn maa fa ñuul man kenn maa fay muuru université bi ñuy jàngee man kenn maa fa ñuul xoolal damay wax ak moom mu ne ma ñaari aaya dañ maa jooyloo ci alxuraan ma ne ko ban mu ne ma bii may bëgg a wax wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa isa daan bu la yàlla laajee bu la gaañi laajee man yàlla fan laa nekk yow Muhammad nang leen ne damaa jege ba ku ma woo ma wuyu la mu ne xanaa sénégalais yi gisuñu yàlla yëgunu loolu mu ne oustaz dama jàng aaya bi jooy ndax bokkaale gu metti gi ñu nekkee xoolal yàlla buur bu tal ne moom mu ne bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk mu ne tontu leen ngan leen damaa jege ku ma woo ma wuyu la kon ku yàlla wuyuwul lan nga deful yaa ko woowul waaye boo ko wooyee xoolal benn yéeféer dafa samp estati di woo estati bi naan yaa sanam yow sama xërëm yaa sanam yaa sanam xam nga làmmiñ bi ni mu gaawee muy wax yaa sanam yaa sanam yaa sanam ba càgg mu ne yaa samad yaa samad yàlla ne ko labbayka yaa abdi wuyu naa la yow sama jaam yonent yàlla Moussa mu ne Moussa mu ne yàlla kii ngay woo xërëmkat la da doon bokkaale woowu la yaa sanam la doon wax làmmiñ bi gaaw mu ne yaa samad xam nga yàlla lu mu wax Moussa yaa Moussa hal min samadin xayri Moussa ndax am na ko tudd samad Moussa ne ko déedéet mu ne kan la mu ne ko yow la mu ne waa ji man la woo man ku ma woo ma wuyu la yéeféer moo woo yàlla yàlla wuyu ko kon jullit bu woowee yàlla lu yàlla def ah yéeféer woo yàlla yàlla wuyu ko kon jullit su woowee yàlla lu yàlla def waaye tàmmunu ko ñun sénégalais yi li ñu tàmm mooy dañuy dem ba jeexal doog a dellusi ci yàlla bu nit di uti dara dañ naan la demal ci guy gi nga sangu waaw bu dee tugaloo ñu ne boxe balee ji njeexeeto boxe balee ja de guy yu ñuul yi waaw dem leen ci guy yi ñuul yi ngeen sangu booy tukki ñu ne la tàggul guy yi tàggul garab yi demal fële ca tuur ya demal fële ca nàngam boo feebaree ñu ne dem leen ci xamb yi rayal leen ko suñ defee loolu yépp nag léegi amul njëriñ ñu ne yóbbu leen ko Dakar hôpital ñu indi docteur yi def ba sonn mënatul ñu ne delloo leen ko ngeen xaar yàlla hmm? delloo leen ko ngeen xaar yàlla gis nga ah yàlla mooy mooy mujj chaque jour ci sunu mbir même fii rek kenn ci ñun soo waree uti liggéey da ngay xëy gàddu say diplôme amaana sax doo julli fajar dem yéeg wàcc ñëw bon man bon dama uti woon liggéey ah déposé ji woon samay kii dem naa ba sonn xolal damay toog di xaar yàlla ah ñun ñëpp noonu la ñuy def ñoom lañuy toog xaar yàlla wala nga perte mbir mi pare nga ne ah comme perte naa ko xaar ma jàpp ci yàlla gis nga perte nga ñu ne xaar ma jàpp ci yàlla xolal yàlla mooy mujj chaque jour fekk yàlla moo war a njëkk amoo droit def dara lu nga tàggu yàlla amoo droit dugg ci dara lu nga tàggu yàlla waaw laaj ko ci laaj ko ci ndimbalam laaj ko ci mën-mënam yàlla yombalal la mbir mi waaye bu fekkee yow sa cëggalu bopp balaa ngay xam yàlla sonn balaa ngay xam yàlla fekk perte ñëpp dem nañ bala nga ne xaaral léegi comme ñëpp dem nañ xaaral ma jàpp ci yàlla du dem mbokk jullit yi wa haza ma taftaqiru ilayhi albashar alyawma lii la nit ñi ñàkk tey yàlla lañ ñàkk yàlla moo nu sori wa haza ma taftaqiru ilayhi albashariya alyawma du loolu la lii la nit ñi ñàkk tey mooy yàlla nit ñi yàlla da leen a sori te yàlla daf ñu waroon jege waaw moo tax ñitu démb yi koo waxal danaan la ayna allah ana yàlla moo tax ñooñu munoo leen doon wax loo xam ne dañ naan la mun ta nekk déedéet ñooñu loo wax mun na nekk ndax gëm nañ ne inna allah ala kulli shay'in qadir doo wax kenn mu ne mun ta nekk ndax yàlla moo leen jege wa sadaqa allahu taala haysu yaqul alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub wala tudd yàlla rek ñu ne day dalal xel jàng ngeen borom xam-xam bi doon opéré nga xam ne loolu moo tax mu tuub scientifique boobu di xool xoolu jullit ñi ak ñi dul jullit bi mu tuubee ñu ne ko lu tax mu ne damaa gis ne jullit yi suñ leen di opérer seen xol yi day dal loolu moo ma tuubloo kon tudd yàlla yàlla nee na ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tudd yàlla mooy tranquillité xel mooy seddal xol ñun fii lan la ñuy wax lan mooy seddal suñu xol yi ah duñu wax voilà waaye bi ma dégloo kaset bi booy dama waay jaw yenn saa yi sax nga di koo xam ne dafa gis artiste bi rek di jooy ne sama xol bi dafa sedd am na fi benn télévision boo xam ne da doon soxal fans yi fans yi da ngay jékki-jékki rek ñu indi la sa fan sa kër ñii di xëm ñii di jooy ba dootuñu mën a lu tax parce que dañ leen indil Balla Gaye rek allahu akbar xoolal nga bëggee noonu nit jooy ba mënatoo jooy wala nga jooy ba feebar ndax sa fans yàlla jarul loolu allahu akbar yonent bi jarul lool islaam jarul lool kon sorante bi lii mun a tey moom la moom la àddina bi ñàkk sunu borom nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla seen xol day dal lu tax ndax zikr bi ñuy def di tudd yàlla waaye xool leen wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin képp ku bàyyi tudd yàlla ñu orienté la seytaane mbirum yàlla dootul neex sa xol marche marche yi niñ tudd marche ngoon yooyu di am télé barça xaw ma ligue ligue waaw barça liverpool wiiri wiiri rek yooyu rek mooy dal xelu nit ñi sonn loolu nga moo nekk ci xelu nit ñi waaw yooyu rek mooy kontaan loo nit ñi allahu akbar waaw bu ñuy seetaan nag jëppay concentré wu mel ni ko gis yàlla kenn du noyyi amoon na benn série bu fi daanam benn mbokk mu ñëw benn kër asalaamaaleykum kenn faalewu ko mu ne nii gis dàll yi ci saal bi mu jël benn saak sol ci dàll yi dem ba série bi jeex ku nekk ay sama dàll ay sama dàll sama dàll nee na bis boobu kenn ñibeewul daal daal dama ko denc ba ba set ma doog koy indi mel ne ku nekk ci julli allahu akbar ci rek théâtre wala film nit ñi di ko jaamu loo xam ne yow ci julli sax wala ci tudd yàlla doo ko def loolu doo doo concentré wu noonu lii la nit ñi manqué tey yàlla boobu moo sori nit ñi xol yi leneen moo ci occupé adduna moo ci nekk yaay Aïcha nee na dan daan toog ak yonent bi di waxtaan ak moom waaye su julli jotee day melate ne xamuñu bi julli jotee day mel ne xamuñu ah c'est parce que jox na mbir mi gëdd c'est parce que xam na kan la koy defal waaye amaa nun adduna moo fees suñu xol yi mbokk jullit yi ne ci kàng daal di toog yàlla nee na képp koo xam ne danga maa bàyyi ah danaa la lënkaleeg seytaane fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum ani sabil wa yaxsabuuna annahum muhtadun dégg nga de yéen dégg dégg aaya bi yàlla nee na soo ma bàyyee dama lay lënkaleeg seytaane mu baare la ci yoon wi ba pare nga yaakaar ne yaa ngi ci di fecc rek laay laay la la dëngër dëngër di tëb nga yaakaar ne yaa ngi ci fekk seytaane moo la baare doo musa yegg pourtant nag xoolal yaa ngi ci nag da nga yaakaar ne foo jaar nag ci mbedd bi dafa ne yaa ngi ci diine nag di jagar jagari fekk yoo ndeysaan alxuraan nee na wa yaxsabuuna annahum muhtadun loolu ñaata la ci ñun fii tey ñuy fanaan ci ay caaxaan tudde ko diine wa yaxsabuuna annahum muhtadun yaakaar na ñu ngi ci jub yaakaar na ñu ngi ci dëgg fekk ci caaxaan lañ nekk ndeysaan mbokk yi kon ñu jël ñaari tomb yi incha allah ba samedi bi di ñëwaat ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuum tey mu des ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu